Nine sant mbooloo mi fi daje di sant yéen journalistes yi nga xam ne tey dañ leen woo tey jii jeudi le 14 juillet 2016 fii ju Touba Guy Mbind ci kër Serigne Sid Al Muxtaar Mbakke kuréel gi nga xam ne ñooy xuddaamu turaas mooy association des serviteurs du patrimoine de Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul muy xuddaamu turaas Cheikh Ahmad Bamba muy kuréel gi nga xam ne ni ko al amin ni ko secrétaire général waxee léegi Cheikh Mahamad Fadal Mbakke noonu la demee day kuréel gu bees gu sosu koo xam ne dafa ñëw tofuwaat rek sofuwaat bokk ci kuréel yi nga xam ne moo fi nekk tey ci dëkk bi di liggéeyal Serigne Touba te ñu ràññee leen lool ñuy kuréel yoo xam ne ay jàmbaar ñoo ci nekk di liggéey bu ñu tuddee lu mel ne raw Rawdu Rayaahin kenn ku ne xam ne liggéey bu rëy bi ñu def ci biir Touba ak màggal Touba li ci def ci xam-xam bi ñu gën a wisaare ak njàngalem Serigne Touba waaye boo ci toftalee lu mel ne Safinatu Amaan bi nga xam ne lépp luy kaaraangeeg dëkk bi te Sëriñ Tuubaa bëggoon ko ci biir dëkkam bi ñoom ñoo koy saytul boo jógee ñëw ci mu muxaddamatu xidma bi nga xam ne ñooy liggéey liggéey bu rëy fii ci Touba ci jumaay Sëriñ Tuubaa ji ko saytu ak liggéey yu yi nga xam ne koy def ci biir dëkk bi nga toftal ci tamit rabitatul maanaam kuréel gi nga xam moo moo ëmb daara yi nekk ci biir Sénégal gépp te seen bànqaas mag bi nekk ci biir Touba ñooñu tamit di ci liggéey bu mag ci biir daara yi waaye lu mel ne mas mu assasatu wafa mooy alwafa bi nga xam ne ñëpp miin nañ ko tay aduna bi lepp xam nañ ko ci liggéey bu reuy bi nga xam ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba fe ci daru Muxti ci conférence yu mag yi nga xam ne ñu koy def ci biir weer koor ngir wasaare xam-xam ak yeneen yi nga xam ne ñoo fi nekk ba ci wa khuddamul khadim ñoom tamit di ay jàmbaar yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi liggéeyal Serigne Touba kon kurel gi dafa ñëwaat sofu ci kuréel yooyu ngir lan yàlla sun borom ci jëm bopp moo bëgg nit ñi gën a gindeeku moo tax boo demee ci alquran ke da ngay fekk sun borom di digal jullit ñi moom mi nga xam ne moom na ngeen nekk benn na ngeen woote jëme ci lislaam jëme ci diina waaye yàlla moo ñu wax nakal ngeen yi wootee pour mën a loolu mën a antu yàlla wax ci alxuraan karim infiru xifaafan wa siqaalan bu ngeen jógee ba di ko def nag jërul ngeen di ànd du benn dànk mais tasaaroo leen loolu yàlla suma wax ci alxuraan karim mooy tasaaroo leen def ay kuréel kuréel wala ay benn benn kenn ku ne daal na nga fexe ba sa fi ngay jóge ngir ne danaa defar penc mi lislaam jag na nga fexe ba bu romb dara te te jagul kon loolu nag la kuréel gii nga xam ne mooy xuddaamu turaas si Ahmad Bamba xam sofu foofu nga xam ne loolu la yàlla suñu borom woote Serigne Touba tamit wax ko feddali ko ci gannaaw ba ko yoon sens wax ad diinu ad diinu an nasiha diine laabirinte la waaye Serigne Touba ñëwaat ne su ma nasihaat li ahlil mi na min al jihaadi fil kufaari jug tamit jéem a euh, laabire nit ñi pour ñu gën a xam seen diine loolu tamit bokk na ci li jihaad yi gën a màgg kon nag loolu lañ toog ba xam ko mu lëx-lëxe suñu biir xol yi di laxlas suñ dënn yi ak suñ bopp yi ñu ne kon nañ jug nag liggéeyal Serigne Touba waaye sofu ci gannaaw kuréel yooyu nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ñi ngeen gisee mbooloo maa ngi toog macha allah tabaraka tey mën nañu wax Touba kenn desul ñi ngeen gis ñëpp foo làmb ci penc yi Touba yi fi nekk muy li ko dalee ci sëñ Mouhamadou Moussa ba ci sëñ Mourtala waaye li ko dalee ci sëñ Mamor Diarra ba ci sëñ Massamba waaye li ko dalee ci maam Cheikh Adam Fall ba ci Cheikh Issa Dieng kon dafa mel ne ñooñu ñoo séq Serigne Touba ndax ñoo yóbbaale taalibe yi ci des yëpp ñoo ñëpp tey macha allah tabaaraka ñu ngi fii ci pàkk bu lab bi di guy mbind di kër Serigne Sidi al Mokhtar Mbacké ah, lim ñëpp waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo fi teew si ñoom xam nañ bu wér nañ ñoo nag ñoom ñu bokk liggéey bi ndax depuis bañ commencé kuréel gi ba léegi chaque jour bu ñu wootee ñoom ñëpp ñëpp dañu ñëw teew ngir ñu fas yéene naka la ñu mën a sàmm patrimoine Serigne Touba bi nga xam ne moom moo waxal boppam ne bi xidmatil kitaab wal xadis yasbut la bi dahabi mawrusi lan mooy patrimoine lii la Serigne kon nag loolu la kuréel gi fas yéene jug ngir sàmmal ko sàmmale ko xalif général de Mouride bi fi nekk sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke yàlla fi yàgg duwel moom lañ jug fas yéene ko sàmmale gannaaw gannaaw bi nga xam ne am nañ ci moom ndigal te yaakaar naa fii ñu toog tey muy pàkkam bu laab bi ñu ko ziyaare fi tey ndigal moo tax ñu toog fi tey ndax fii lañ ko fekk si woon ak kuréel gi ñëw sàkk ci moom ndigal àndandoo journaliste yi ñu àndaloon ñu jël ko mu kontaan lool sas ñu ne na ngeen fexe ba lépp luy téere sëñ Tuubaa yi ci wàllu xam-xam ak ci wàllu xaside yi na ko gën saytu waaye lépp luy jàngal alxuraan karim ni ngeen ci gën a góorgóorlu lépp loo xam ne tamit day taaral yoon na ngeen ci gën a nekk kon nag loolu moo tax ñu woo kuréel gi pour wax leen li nga xam ne moo tax kuréel gi sosu kon kuréel gi li tax mu yëkkati lu dara lu dul ni ñu leen ko waxee léegi mooy sàmmale Serigne Sidi Al Muxtaar Mbakke moom mi xalifa général de Mouride yoon wi nga xam ne moom la ko Sëñ Tuubaa bàyyee la ñu fa yéene nekk tënku ci ak keppaaram di wéy ndigal ndax Sëñ Tuubaa dafa waxoon ci ay baydu gàtt tënkoon murid yi te wax ne murid yi li seen foor li nga xam ne mooy tax Ah, ñuy seen existence mën a mën a kunde ba abadal abide mooy fas yéene sàmm ndigal topp ci ndigal luñ luñ lu ñu digal ñu def lu ñu tere ñu bàyyi moo tax sëñ bu yàgg ci ay bayit ne mandarga murid saadix du dara lu du bëgg sëñ bi topp ndigalam te doo gaaral te doo am choix kon ñeent yooyu nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tënkee yoon wi kuréel gi loolu la fas yéene njëkk a jug pour insha allahu rabbi wane exemple ndax nit ki kat bala ngay naan diglee sangu da nga war a sangu ba pare moo tax ñun tamit ñu fas yéene lépp loo xam ne suñu kilifa yu baax yu tedd yii ci biir dëkk bi jiite ñu ka ci bopp di seen siin maxtaar yàlla fi yàgg te wér lépp loo xam ne moom la ñu joxañ ñu fas yéene nekk ca loola lépp loo xam ne gis nañ ne seen bëgg-bëgg la ñu fas yéene koo dabi waaye lépp loo xam ne nañ ne lii dañ ca maandu wala waxuñu ci wala dañ caa tekkaaral ñun boobaa kenn ñu fekk kenn du gis kon loolu dañu wax ne sàmm patrimoine ba ci njëkk mooy li sëñ bi bëgg nga nekk ci mooy mooy topp ndigal buñ ci jógee tamit ahdaaf yi maanaam objectif yi nga xam ne macha allah tabarakallah bind nañ ko ci kayit def nañ ko français def nañ ko arabe jox nañ ko suñu bokk journaliste yi yaakaar naa nekk ci biir ñoom xam nañ ko waaye daal li ñu gën a yëkkat daal mooy fexe ba ndono li fi Sëñ Tuubaa bàyyi dañ gis na dafa menacé wu menacé wu na moo xam ci biir la ci biir murid gi wala ci ginnaaw ci lu dul murid gi la ndax tamit bu ñu xoolee wax actuellement ni jamono bi ñu toll ci biir murid gi bari na ci lu baree bare bare bari loo xam ne dugal nañ ko ci te loo xam ne bokku ci bokku ci loolu nag kenn mënu ko dindi ñun rek ñoo ko mën a dindi ñun ñi nga xam ne maanaam Sëñ Tuubaa dañoo sas dañoo sas ndax sas mun la paas Sëñ Tuubaa ñaan ne durriyatan tayyibatan tujaddi nahjana Musa tahidu kon loolu aw sas la woo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko ñaan yàlla suñu borom kon nag li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi woon te mu yoonu set wicc bu teggu ci alxuraan ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ni ci ay téere bàyyi ko fi loolu daal lañ fas yéene insha leeral ko bu wér a wér a wér ba ki képp ku xam ne yaa ngi ci biir yoon wi gis doo xam ne eh, ki koy def kat maanaam boo ko xoolee doo ko boo xoolee njàng la Sëriñ Tuubaa ko gis boo ko déggee ci li ñu daan nett li Sëriñ Tuubaa doo ko gis incha allah fas yéene nañ loola ñu dindi ko nag ci xekma ndax mbir moo gis mu ne yàlla yàlla sunu borom wax yentu sa uddu ila sabbi bil maa lépp looy wat na ko def ci xereñ te bañ ko def ci pët pët waaye incha allah daal lépp lu man doon daal kuréel gi fas yéene naa ngir leeral loolu ba taq-taq yi nga xam ne nekk na ci biir yoon premièrement na lañ mën a fexe ba leeral ko ba taalib bu ne xam ne lu li nit di def nga xool ko bu baax ci njàngale suñu jox gisoo ko ci xool ko suñu kilifa tedd yi fi jotoon jaar la ko dal si Mouhamadou Moustapha ba na fi yàgg ko ñun fas yéene nañ ko leeral ba nga xam ne boo gisee keneen di ko def te nga xam ne moom moo ko defloo boppam waaye bokkut ak li fi Sëñ Tuubaa bàyyi kon kuréel gi loolu moo tax mu jug loolu moo tax mu kii kon ci gàttal loolu mooy tënk yi bu ko defee Sëñ Ahmad Fadal dana ñëw leeral objectif yi gàtt yooyu ci nu mu gën a gaaw ndax waa temps bi xat na kon bala moo àgg ci moom dañuy jox Sëñ Xaadim mi nga xam ne moo fi moo mooy mooy vice président association bi macha allah tabarakàllah di jàmbaar joo da a waxtaanal ci mu rafetlu ko lool ñu ànd di ci liggéey ba ni ñu accès fi tey kon moom la moom lañ defoon vice président bi mu topp ci man incha allah dana yëkkati kàddu yoo xam ne dana jógee ci sëñ Sidi Maxtaar waaye kàddu yoo xam ne dana jógee ci en tant euh, Fadal Cheikh Mahamad Fadal mi nga xam ne mooy vice président bi mu wax suñ te suñu trésorier tamit dañoo mi ngi toog muy sëñ Basiru Mbàkke bu mu sëñ Moussa Basiru mi ngi toog sëñ Bas Salis mooy trésorier association bi ngi toog macha allah tabaarakallah euh, ñi ngeen gis ci ginnaaw ndax ñeenti commission la la association bi euh, kii kii commission secrétariat boo xam ne sëñ ma sëñ Mouhamadou Fadel moo ko moo ko jiite maanaam commission bi nga xam ne moo nekk wàllu porte parole ak ak jëm ci wàllu wàllu wàllu lépp lu aju ci ci loo xam ne dañ ko jàll ci médias yi mel noonu commission boobu euh, sëñ na Mbacké bu sëñ Habib bu sëñ Abdoulahi borom dër moom moo ko jiite maanaam boo ñëwee ci commission d'organisation sëñ Khadim Fall mi nga xam ne euh, waa kër maam Cheikh Ram Fall la moom moo jiite lu mel noonu boo ñëwee ci wàllu trésorier bi commission boobu mooy wàllu finance sëñ Bassirou Mbacké mii moom moo ko jiite waaye des na beneen commission tamit muy muy bi nga xam ne mooy commission culturelle et scientifique kooku sëñ Aïssa Gueye ak sëñ Mourtala Silla Abou Mariam ñoom ñooñu ñu nga xam ne ñoo ko jiite xam naa lool incha allah ci kanam-kanam dana gën leer kon daal ci lu gàtt maa ngi jox sëñ euh, xaadim mii mu daal di àggale kàddu yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi sant nag euh, bala ñu xëy na sax loolu bu ñu tëj dana waaye nag wax dëgg yàlla ni ñu média yi wuysee yàlla kawe na suñ jot lool xëy na euh, euh, maanaam maanaam maanaam pas-pas bi xëy na moom lañ yàlla suñu borom euh, maanaam sol ci yéen ba ngeen xam ne mbir mi kat du mbir moo xam ne mbir mbirum nii la rek waaye day mbir moo xam ne dafa tegu ci ndigal tegu ci pas-pas bu leer nañ moo tax ngeen ñu wuy suñu di sant bu baax site internet yi nga xam Baol Média bi nga xam ne mi ngi koy def en direct fi ñu toll fii ñu toog wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي جعل الفلماء آمن الرسول وخلفاء عليه الصلاة والسلام وارتداهم لشهاده التوحيد الملائكة الأرض والسماء وقرهم بنفي الأصوى مع غيره بقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bi nu sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci sayduna muhammad alayhi salatu wassalaam di sant seexuna cheikh ahmadou bamba khadim rasul tey nag ñu jëlee ndigal ci sëriñ touba a cheikh seydil moxtaar mbàkke mu wàcc ci njabootu boppam wàcc ci taalibey boppam wàcc ci mboolem ku naan ashhadu an la ilaha illa allah kon fi ñuy tàmbalee mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem ku fi teew di la jox sa wàccuwaay wi la sunu boroom tabaraka wa taala jox ginnaaw bi mu ko jaarale say waajur yu sell ba tey jataay bii nga mën cee bokk jataay bii nga mën cee joxe xalaat bu rafet te lépp Sëriñ Tuuba lal ko ñu ngi nuyu ku fi teew ku nekk ci turu Cheikh Sidil Muxtaar Mbakke jataay bi nag nekk jataay boo xamante ni jataay mën koo gën a féete kaw li tax ma wax loolu mooy ndax lépp dafa tegu ci ndigal te ndigal moom dafa nekk caabi la boo xam ni bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi te boo ko yootaane yàq sa kànnaar kon ndigal loolee moo nu may jëm moo ñu may fit ba lii mën a am tey jii kon ni ko sëriñ maam Cheikh lime léegi duñ ci jaaraat ci ñi fi teew ci li nga xamante ni ñoo fi jiitu woon seenub liggéey rafet lool ba tax nañu xemem loola ñëw sos ci ñooñ kon nim ko waxee rek noonu rek la deme fi ma ci taxawe ak fi ma ciy waxe ci ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar ci laa koy waxe ndaxte ban ko sosee danoo àndandoo ñun ñëpp ñëw ci sëriñ bi laaj ko ci ndigal mu joxe ci ndigal ndigal loole mu joxe nag da caa boole ak soññi boole ca loo xamante ni ñun fooguwuñ ko woon sax ci sëriñ bi ci pas-pas ak ci la nga xamante ni moo war doxal la nekk ci biir mbir ya ca ya ca aju lépp mu def ko ci biir kon loole jàppale na nañu ci baatin jàppale nañu ci saahir loolu laa bëgg a wax kon soññ nañu tey ni na ngeen ko yaatal bu leen ko yàmmale ci mbàkke wala buso na ngeen ko tasaare ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo séqoon sëriñ Touba daan ko liggéeyal kon loole sëriñ bi yaatal na ko képp koo xamante ni am nga foo ca yem daal yaa ci yemal sa bopp waaye sëriñ bi yaatal na ko bu baax baax kon loole ñu gën cee jàpp gën cee góor góorlu bu baax te xam ni ndigal moom lu mu lal lu nekk rek boo ca góor góorgóorloo tuuti rek sunu boroom dana la ci dimbali te lii ndigal moo ko lal moo tax ñu ñeme koo defee ci béréb bii bu fekkante woon du ndigal duñ fi ñemee toog bay wax sax walla lenn kon loole ñu koy xamal mbokki taalibe yépp ni sëriñ bi di lu mu ànd la ca ginnaaw ba mu àndee ci ñi fi jiitu woon te ñi fi jiitu woon sëñ maam Cheikh lim na ko ñooñee sëriñ bi rafetlu seenub liggéey bu baax a baax a baax a baax kon buñ ñëwee sos ci ñooñu ñooñu danañ ñu mën a dimbali danañ ñu mën a jàppale danañ mën a yiir ndax kenn ku nekk ci mbooloo yooyu am na ñu fi teew kon loole mooy waral ni sëriñ Touba moom li mu bëgg buñ ko defee day am buñ ko defu day am kon nag loole kenn ku nekk ci ñun mu def ko comme sa yëfi bopp tàmbalee ci sa bopp tàmbalee ci say taalibi tàmbalee ci kenn ku nekk waaye nag nit moom lépp lu muy def lu nekk da koy natt ci boppam ba noppi soog koo def ba pare tamit ña ngi koy digal buñ ko xoolee ci yow gis ko ci yow euh, kilifa noonu lay doxe ak kudu kilifa noonu la walla doxe looy wax lu nekk doomu aadama yi na jiitu ci sa jëmm ba noppi ñu soog koo nga soog koo def boo ko defee ku ko xool du ceegeen da ngay taxaw di woote wala dara waaye jëfin wu rafet ba ngay jëf mooy waral loole kenn ku nekk xeemam loolu kon loolu ñu ngi koy dénk suñu bopp di leen ko dénk te ñaan suñu borom defal ñu sutura ci li nga xamante ni mooy toolu Serigne Touba bi ñu bay ko mbayin wu sell te it ñaan kenn ku nekk ci ñun muy sët wala doom wala ku man di doon ci waa kër Sëriñ ëtt Sëriñ Tuubaa yëpp maanaam sas wi bañ a booyee ci yow kon lool ñu ngi koy dénk sunu bopp dinañ ko dénk wasalaamaaleykum wa rahmatullah jëf sëriñ maam Cheikh Mbacke ci kàddu yi nga xam ne moo nga ubbee jërëjëf sëriñ Xaadim Mbacke ci kàddu yi nga xam ne yow moom nga tëje muy kàddu yi sëriñ bi li nga leeral am na solo trop kon ci tënk rek dañ leen di leeral ni ko sëñ maam Cheikh waxe xam nañ ni a mbooloo bu taxawee du ñàkk mu am ay objectif euh, objectif mooy jëmuwaay yi nga xam ni soo taxawee dangay leeral ni fii laa bëgg a dem ndax lépp loo xam ni kenn wutalu ko aw yoon ak boo jógee foo bëgg a dem sottal ko du yomb am nañ xel mu dal bu baax ci xam ne sëriñ ab liggéeyam bis bu set kanam lay jëm ndax dafa jaayanteeg boroomam liggéeyal ko liggéey boo xam ne suñu da ko garanti ba day jëm kanam waaye du du yàqu mukk saa boo demee ba mbir yi gën a jaxasoo demee ba amum tiit ci li xew jamono bu ne ci biir yoon wi ak ci biti yoon wi muy ni ko sëñ maam Cheikh waxee muy ay defi yoo xamante ni mi ngi dëkk yoon wi tey bàyyeekoo ci biir ak ci biti lu mu ci mën a doon saa bu ñu demee ba suñ xel lënt ba tiit ba jàq rek bañ wàcc yoon wu ñu sëñ Tuubaa tegoon nañ am xel mu dal ni lépp dana wëlbatiku tegawaat ci yoon loola li li li ma ci li ma ciy jàpp comme firnde rek ci lu gaaw mooy sëñ Afe ñang dégg naa moo mos a wax ni sëriñ Tuubaa daa mos a wax ne leen bett ngeen ma ma bett leen ngeen bettaat ma dinaa leen bettaat di leeral bett yooyu ba wax ni bett gu njëkk gi mooy dafa wax ni taalibe bett gi ñu ko bett mag ñi àndoon ak moom dafa jàppoon ne su wootee duñ ko wuy si te bañ ma wootee ñëpp ñëw wax ni ñoom moom it bettaat na leen ndax bett gam leen bett mooy faye na leen loo xam ni ñoom it fooguñu ko woon te it buñ ñëwutoon duñ ko amee ci moom duñ ko am benn bi ci des it mooy bettaat nañ ko ngir nañ jëfandikoo xéewal ya ak xëy na wàcc gën a wàcc fa ñu sëriñ bi tegoon ci wala boobu ci ñu ëpp mu waxaat nag ne daa leen bettaat ba mu waxee loola waxut leeralul bett gu mujj ga te loola day boo soo ko bàyyee noonu dana mel ni lu bu ñëwaatee lu garaaw lay doon waaye nag am naa ci xel mu daal ba jàpp ni man ci sama xalaatu bopp jàpp naa ne bett ga ñu sëñ bii betaat mooy tiit mi am ak jàdd gi am te ñëpp tegandoo ci seen bët jàpp naa ne ci biir jàdd googu li mbooloo mi bari bari. sëñ bi sëñ bi mooy seppi waatal boppam ci biir mbooloo moomu ñu koy taxawul li nga xam ni garanti na ko digganteem ak boroom moom ba du sànku loolu moom am naa ci lu wér ne bettaat googa moom du doon bett goo xamante ni lu ñuy gàllankoor lay doon ndax sëñ bi bu doon boppam rek du sonn waaye sunu jariñoo tax kon sunu jariñoo tax nag bettaat ga mooy suñ demee ba bay mbir yi jax ba jaxasoo rek dana seppiwaat ci suñ biir di mu ko doon ñaane zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyal mustafa tajtahidu loolu dana seppiwaat ci suñ biir ñoo xam ne te mooy mbooloo yi ngay séen te ñu am objectif li li ci dëkkam bi gëm naa ne loolu mooy ndax li yamiza allahu alxabisa min a tayyib suñu borom mooy tànnal boppam te sëriñ Tuubaa yàlla fay na ko baax a baax kon nag boobu rek mas na ko jàppe sax comme objectif ndax moo ci jiitu waaye ñaareel ba it euh, ku ne xam nañu euh, même bu dee euh, sàmm ndonal sëñ bi la mooy ni nga ko waxee loolu ci tënk rek ndono moom mënta weesu xëy na ni ma ko jàppee ñaar ndonal loo xam ne luñ mën a teg loxo la ak luñ mënta teg loxo liñ mën a teg loxo mënees na ko mënees naa lu mel ni ay daara yoo ay daara ay ay ay tool ay ay barabi jàngukaay wala ay juma yu mel noonu wala ay téere yoo xamante ni bindees na ko bàyyi ko fi kon ndonal sëñ bi ci luñ mën a teg loxo loolu mënees na ko ci tuddu waaye bu dee luñ mënta teg loxo it mënees na cee jàpp lu mel ni sëriñ bi ñim jamonanteel te yar leen te def ci moom ñoom comportement jikko yoo xamante ni ko ci jàkkaarloog moom bu jëfee wala mu wax rek nga xam ni alquran la wala wala sunna ci fulla ak fayda ak jom ak am li ñuy tuddee mbañum rus loolu ay ndono la loolu nañ jàpp ni ndono la ci ndono la ndono la bokk ndax nit kuy koo xamante ni am na mbañum rus am na fulla am na fayda nangu naa lu di liggéey du yàq kooku sëriñ bi fexe na ba def ko ci taalibe yi te it moom dañu bàyyi loo xam ne ñëpp ñeen nañu ci nag ba bëgg ko roy ci ñun beneen bi ci des mooy liñ di fexe ba sàmm li ñuy tudde wala tasaare li ñuy tudde culture mouridisme ci àdduna bi yëpp fexe ba xam tamit takk def yi nga xam ni mooy bàyyeekoo ci yoonu murid ak yi bàyyeekoo ci biti mas na wax bu yàggul rek Euh, ci benn euh, xasida goo xam dañ ko doon tuumaa sëriñ Touba tudde ko pont Ponti yaakaar ñu bari dégg nañ ko te ñu wax ni sëriñ bi da ci doon tàgg euh, ku ñu wax William Ponti ak soxnaam te loolu wérut ma ma doon wax ci jamono yooyu ne dëkk maanaam li ñu tudde ay défi te nga xam ne dafa génn dafay dëkk yoonu murit tey bàyyee ko ci biti ngir ñu mën a saafara loolu bala ñu ko ba balaa moom mën a nekk faw ñu yëkk yi ci biir ndax loola mooy tax ñu mën ñoo wekk mooy tax ñu mën ñoo jox cër kon loolu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax beneen bi ci des ñetteel bi ñetteelu objectif bi gis nañ ni yoonu murit discours am dafa amul place ci côté presse bi maanaam ak widd da ci am widd goo xam ni seetlu nañ ko par rapport ak yeneen këri diine yi wàccuwaay bi ñu am ci ci ci ci presse bi ak ni ñuy jàllalee seen seen i objectif ak lañ bëgg yoonu murit dese naa am loolu xëy na nag bëgg-bëgg bi am na fi force bi am na fi mais dañoo dañoo desee noso te lépp lu nësuwul dana dana dana jafe mu tege ci aw yoon kon nag bokk na ci objectif yi mbooloo mi vidde boobu am ñu fexe nuñ ko fatte fàtt gi nag jàpp naa ni mooy ay nit yu yu ñu waajal ci xam-xam yoo xamante ni xam nañ li Sëriñ Tuubaa bëgg xam fam tegoon tànkam te te tañ tañ fas yéene ko caaroy loola mooy ñu fexe ba ñu ay nit yu mel noonu ñu waajal leen donte ay émission lañuy la ñuy am ci ci ci ci euh, ci rajo bu ne wala tele bu ne di fa jàllale mbirum Sëriñ Tuubaa ndax am na ñuy wax wax ji bari na waaye est ce que ñi war a wax ñooy wax loolu ñuy wax moom yi ngi am waaye suñu bëggee nit ñi jariñu te mënuñoo ñàkk déglu mënuñoo ñàkk seetaan te xam nañ ku ne xam na ni euh, lu wàllu média internet ma rôle bi muy joué ci ci tasaare ab nga xam ne mën ngaa toog fii léegi ci lu néew ab minute xibaar tasaare ay yëgaloo ko yëgandoo ko kon jàpp naa ne ñay ñay tasaare ak ñay ku yëkkati kàddu di wax war naa war a doon ko xam waaye nekkul ni képp ñëpp war a wax waaw kon nag day mel ni ñun dañoo safaane mbir yi maanaam ñi war a wax ñoo noppi ñi warta wax di wax wax mu mënta ñàkk faaw ki war a waxay wax rek wala wala ki ki ki warta wax di wax te boobaa kon jàdd gi day gën a metti waaye nag nañ bàyyi xel ni kon loolu sunu si internet beeg fépp fu ñu mën a jaar ngir tasaare njàngaleem Serigne Touba mënees na koo jëfandikoo ci côté boo xam day positif donte euh, euh, internet moom ak média lépp lu mën lu ubbeeku la loo xamante ni kenn mënatu koo fat kenn mënatu koo téye kon mënees na ci nañ ci profité ci jamono ji nga xamante ni noon bi jël na ay matuwaayam jàkkaarlu lu tottu ak ñun di xeex ci ngànnaay waaye ma ngay xeex ak ñun ci li ñu tuddee al rasul fikri kon bataay bi muy def ak ñun ci am xel la koy aj toog fa toog di yàq ñun ñuy soppeeku te duñ ko yëg kon nañ xam ne loolu sëriñ tubaa nekkutoon nit koo xam ne rek a ah, maanaam ab jaamukatu yàlla rek la wala ku ñuy yéem ci ay kiimaan déedéet sëriñ tubaa boroom xam-xam la woon ku amoon culture la sëriñ tubaa ab économique la woon sëriñ tubaa ab socialiste la sëriñ tubaa maanaam ab xalaatkat la sëriñ tubaa ab yarkat la sëriñtubaa tubaa ab jubbanteekat la ku xam jamono la koo xam ne dafa boole euh, njariñal adduna ak alaaxira kon boo ñàkkee xam ni nga koy jariñoo rek ñeneen danañ ko jariñoo kon te ñun kenn gënuñu ca yayit ndax ci ñun la fay ñeenteel ba mooy fexe nag ba nga xam ni tas li ñu tuddee tasawuful islaam yi ñàkkul euh, maanaam ngeen xam ni am nay noonu tasawuf doonut lu du rafetal sa sa jëf yi ngay jëf nga teg sa suñu borom rek ci sa kanam sellal ko comme ba Jibril laajee Yunus alayhi salaam di ko laaj ba egsi ci loolu mu ne ko mooy nga rafetal ci sa sa diggante sa borom ba man ni moo ngi lay gis te boo ko gisul nga xam ne moom mi ngi lay gis tasawuf boobu nag nga xam ne Serigne Touba ci la nekk ñeneen nekk ci ta tasawuf boobu lu ñu lu ñu war a sàmm la ndax bari na ay noonu ñu koy gàllankoor ñu ko yàq te yàquñu ko ñu ko lu dul ay intérêt intérêt yoo xamante ne ay personnel ak ay intérêt politique te loolu it ñiy gëstu xam nañ ko bu baax a baax juróomeel ba xam nañ ni ni ko sëñ maam seex waxee léegi bu bu bu yëpp sosoo ba pare nag ku nekk jug wut foo aw keroog bi nga ma ko waxee maa ngi lay wax ne nag li ñu tuddee travail collectif mënta ñàkk maanaa ku ci nekk sosu nga jëm fenn nag ne damay liggéeyal sëriñ Touba xëy na tasaaroo gi dana yaatal waaye nag léeg-léeg ñu daje bañ wane ni ñii ñu am doole lañ loolu da ciy baax ndax tàqalikoo léeg-léeg mu jur mu jur genn faible faible googu nag day tax bu mbooloo toogee di wax. tey ña ñay jàkkaarlu ñoo xam ne ñi la ñuy wax dëgg la waaye dañoo amul doole xëy na benn gëdd bu dëgg-dëgg mën lañ ko mën lañ koo bañ a jox waaye nag euh, mbooloo mooy doole kon nag léegi-léegi ñuy daje mbooloo yi nga fi tudd tudd ko te ku ne sosi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi léegi léeg nag ñu dajandoo ñun ñëpp bañ xam ne ñii ñoo bokk ay objectif ñoo bokk lu leen lool loolu léegi-léeg day baax kon bokk na ci objectif yi ñu ñu fexe ba effort yooyu ju bennale ko léeg-léeg bay bay xàccandoo di dóorandoo di yëkkatindoo di tegandoo juróom-benneel bi bokk na ci mo nekk ci côté euh, saqaafa ay domaines yu bari ak politique ak économique ak social lu mu ci mën a doon ñun lépp loo xamante yëkkatee ti nañ ko ba ci côté domaine boo xam ne ñoo ngi koy ñoo ngi ci yëngutu rek nañ xam ni objectif principal bi mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye nag euh, ànd ak nag ndigal loo xamante ne day bàyyi ko ci sëriñ bi ndax bu ñoo ngi fàttaliku ba ñuy njëkk a ñëw ci moom ba bañ waxee moom ba pare moo moo ñu xamal ne ni moom de moo bëgg moo su ko su ko mënoon moo koy defal boppam su ko mënoon moo koy defal boppam jëm na mag tey ne li aju ci moom bari na waaye ñun comme que nekkal nañ ko foo xam ne moo fa waroon a nekk tax yëg na responsabilité boobu mu ni fuñ ci toll na ko yëg te loolu moo ñu ko waxal boppam jox ñu ci digal kon nag fuñ tollati ci sunu liggéey dañ dañ danañ ko fas yéene yëgal sëñ bi ndax suñu sëñ bu lenn rek la muy jëfe ndigal ak ak bàyyi tere topp te loolu moom la moom mooy bay di nga wax léegi te te tey mooy li tax ab taalibe ñu mën koo nangul euh, ay ay jëfam mooy lu muy def lu ne na ci am ndigal te yàlla dimbali leen am nañ ndigal beneen bi ci des te moo mujj mooy juróom-ñaareel bi mooy fexe nag ba li nga xamante ni bi sëriñ bi toogee nekkal fi sëriñ Touba bokk na ci ay objectif am yëpp njëkk a wax fexe ba ak dal ak jàmm am ci réew mi te loolu xam nañ ni ñun ñëpp ñoo bokk seetloo ndoo ne li ñuy tudde këri diine yi atti këri diine yi muy euh, këri tasawuf yi ñoo ëpp doole ci Sénégal te ñoo fi ëpp ñoo fi ñoo fi ñoo fi nekk ku jógit ci ñoom nga jëm loolu sëriñ bi ab ab bokk na ci ay yéeneem mooy mu jàmm am ci seen diggante ndax gis nañ eh, lu baree bari li ci am ci wàllu ak ak féewaloo léeg-léeg waaye tamit ñu ñu bokk ñoo ñu mën ñoo bokk lépp ah, li ñu boole moo ëpp li ñu tàqale ñoo bokk suñu borom bokk yonente bi bokk alquran bokk eh, ponki lislaam yi bokk di defandoo lépp te di ay jullit te it mbokku lislaam moo gën a foor mbokk aw askan kon nañ jiital mbokk woogu ñu suñu borom sàmmaloo mooy rafetal suñu diggante ak suñu yeneen këri diine yi nga xamante ni ñoo nekk ak ñoom bokk ak ñoom réew mi te ku ne xam na ni moom yàlla moom mooy maye ku nekk la muy may may na la ko waaye nag rafetal rafetal dafa baax ndax yàlla moom la ñu dénk ñu rafetal suñu diggante ak suñu mbokk mbokki jullit innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum kon lii rek mooy objectif yi euh, lu jub ci wax ji nañ xam ni ci suñu borom la lu ci dëngit ci ñun la euh, ndax xam ngeen wax ci mbooloo dafa metti Uh, in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib di ñaan bu baax a baax mbooloo mi suñu borom eggale ko ak yeneen mbooloo yi bokk ak moom jëmuwaay foo xamante ni kawe na suñu njort ci liggéeyal Serigne Touba te liggéey bi ñu liggéey liggéeyal Serigne Touba mu nangul ñu ko te laqal ñu ko fa yàq yëgut ba bu ëllëgee bu ñu tasee moom duñu rus duñu sëgg te suñu yéene ji ñu am dañoo bëgg ñëpp tege ci yéen ñëpp jóg donte loolu jafe na waaye nag dañ def suñu kem kàttan uh, wasalaamu ala man ittaba al huda